بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي ديل سوار ناني نجير نيو تايجي نجير فسيني تامبولي yéene tàmbulee nafar téere bii di al mursidu al ñu gën koo miine ci turu ibnu asir muy téere bu am solo lool bu ñu yàgg fonku ci di ko jàng ak di ko jàngale rawante na suñ mbokki naari gànnaar yi ñoom dañ koy far sax di ko mokkal téere bii ki ko taalif dañ ko miine ibnu asir waaye mi ngi tudd xabdul waxid ibnu ahmad ibnu ali ibnu asir al ansaar yi ñu di ko dàkkantale abu muhammad ibnu xaasir moomu ñaareelu maamam la ñoom nag ci wàllu askan ñi ngi bokk ci lamsaar yi seen cosaan di andalus waaye moom mii nag mi ngi sosoo faas fala gane jamono ci atum juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk doonoon boroom xam-xam bu mag doonoon it ku sàmm ku nangoo jaamu yàlla maanaam kuy jaamu yàlla ku géeju lool ci xam-xam yu teqali yu bari rawante na ci wàllu alquran ak alqiraat asab doon na ku ci amug ràññee lool waaye yeneen façon xam-xam yépp ci naxwu ci tafsir ci irab ilmul kalaam ak yépp doonoon jaamukatu yàlla ci aj màkk ci jihaad lixtikaaf dundal guddi yi doonoon it bindkat taalif ay téere yu bari yu am solo te bokk na ci téeréem yooyu mooy téere bii nga téye muy almursidu almuin ala daruri min ulumi diin di téere boo xam ne téere bu ñàkk moroom la ndax ci gàtt gum gàtt waaye bëri gum bëri ay njariñ lool mu doon téere boo xam ne dajale na ci ñetti xam-xam yi nga xam ne ñooy xam-xami diine muy tawxiid ak fiq ak tasawuf lu ci nekk indi na ci lu doy sëkk ab yóbbal te tax koo gudd lool téere bu ndaw la kon bari na njariñ lool waaye yemut ci téere bii dong bind na yeneen téere yu bari bokk na ci sarxu mawridi zamaan fi ilmi rasmil quraan waaye sax sarxu boo xam ne mi ngi ko def ci muxtasar Cheikh Xalil bi ñu xam nee ñu def na ci ab sara donte nee nañ sara woowu nag matut waaye al i'laan bi takmiili mawridi zam'an ba tey moom mi bind na ko waaye def na sax ab xaasiya ci sarxu saxiir kon loolu lu tuuti la ci téere yi mbind mu ngi faatu bi bisub alxames ñetteelu fan ci weeru tabaski atum junni ak ñeen fukk ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañ it ña ngi ko denc foofee ca faas bismillahi kon nu dal ci téere bi mu ne yaquulu dana wax abdul waaxidi jaamub yàlla mii kenn ibnu aasir te mooy ibnu aasir mubtadi an muy aji tàmbulee bismil ilaahi ci tur yàlla alqaadiri kay aji am kàttan dafa xamle boppam ndax loolu mooy aaday taalifkat yi ndax yàlla na ci képp koy bind ab téere nga xamle sa bopp ndax loolu mooy tax ñu mën a jariñoo téere ba waaye téere boo xam ne xamuñ ko ko taalif wala fatwa boo xam ne xamuñ ko ko def loola kenn du ko jëfandikoo kenn du ca àttewoo kenn du ca sukkandikoo kenn du ca tegtaloo loolu boroom xam-xam yi ñoo ko wax moo tax mu xam ne boppam ne moom de mi ngi tudd Abdul Wahid waaye ñu ngi koy woowe Ibnu Asir moom mooy wax tey tàmbulee ci tur yàlla mi nga xam ne mooy boroom kàttan gi dara tëwu ko lépp la man alxamdu mboolem xeeti cant yépp lillaahi aji yey la ñeel yàlla alladi yàlla ma nga xam ne àllamanaa xamal nañu minal ulumi ci xeeti xam-xam yi maa la nga xam ne la kallafanaa togg nañu jëfe bihi ci moom li muy wax daal mooy tàmbale ci sant yàlla mi nga xam ne moom mii taalif da ko boole ci jaamam yi nga xam ne da leen xamal xeeti xam-xam yi nga xam ne dafa togg ci ñoom ñu jëfe ko maanaam dafa waral ci ñoom ñu jëfe ko yàlla waral ci nun ñu jëfe ko mën naa am benn muy fardu ayni mën naa am muy fardu kifaaya ndax farata ñaari xaaj yooyu la am daañu ko gis ca kanam bu soob yàlla yi nga xam ne moom la yàlla teg ci suñu kaw ci ay àtte ci ay ay ndigal ak ay tere def leen ak bu leen def jàmm bu ne war góor góorlu ci xam ko ràññee ko ba mën koo jëfee moom mii daal nee na mi ngi sant yàlla ndax gis na ne yàlla boole na ko ci ñamu xamal loole mu waral ci ñoom ñu jëfe ko ak lam waral ci ñoom ñu ba ko salla yàlla na dolli xéewal wasallama te dolli musal ala muhammadin ci muhammad wa alihi ak ñooñ muhammad wa sahbihi ak saxaabay saxaabay muhammad wal muqtadi ak ajroy muhammad xewal ak mucc bu ànd ak barke yàlla na wàcc ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye ak ñoñam ña bu ñu waxee aal am na ñu ne ku bokk ci xeetam bi te gëm yàlla te ragal ko rek dugg nga ci alu muhammad am ñu ne déet alu muhammad kay nag moom ñu ñu ràññe la ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu woowoon ne xam leen ñooñu mooy ñoñam saxaaba nag bu buñ ko waxee mooy képp koo xam ne daje na ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gëm ko te faatu ca gëm ga kooku ñooñ ñoo tudd saxaaba ak képp koy roy muhammad ñi ñëpp daal la ñaanal yàlla saxal ci ñoom xéewal ak mucc ak barke wa baadu gannaaw bu loolu jàllee mooy sant yàlla gi ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak xamle boppam gi fal awnu ndimbal mooy lañuy sàkku minallahi mu tukee ci yàlla almajiidi may aji tedd fi nadami abyaatin ci way ay bayit tufiidu yooy dana jëriñ lil ummiyi ñeel ko jug ndey al ummiyi mooy koo xam ne mënta bind mënta jàng lu ñu bind te ñooñu nag yont yàlla mouhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy seen kilifa li may sàkku daal ci yàlla mooy ndimbal loo xam ne dana ma ko dimbale ba ma mën a way ay bayit yoo xam ne dana jariñ ñépp ñépp moo xam ñi mën a jàng ak sax ñi nga xam ne mënuñoo jàng bayit yooyu yi nag maa ngi ko bëgg a way fi aqdil asari yi ci pas-pasu wala ci njàngalem imaamul asari yi ci wàllu tawhid wa fiqhi malikin ak fiqhu imaam malik ni imaam malik jàngalee fiq wa fi tariqatil junaydi ak ci yoonu junaydi assaliki may aji suubu téere bii daal nee na wala bayit yii daal nee na ci ñett yii laa ko bëgg a teg maanaam ñett yii laa bëgg a jàngale ci téere bii may taalif rek ñett yi mooy taw tawxiid ak fiq ak tasawuf ci wàllu tawxiid dama cee bëgg a topp yoon wa nga xam ne moom la ci imaam al ashari jàngale woon yoon woowu rek ci laa bëgg a awaat ci wàllu fiq yoon wa nga xam ne imaam maalik mook ay dongaam yoon wu ñu rëddoon ci wàllu fiq lañu déggee ci alquran ak ci sunna ñu di ko tuddee mazhab imaam malik ngirum imaam malik yoon woowa laa ci bëgg aw ci wàllu tasawuf nag lama ma ciy indi moom dama ci seet la nga xam ne moom la imaam abil qasim al junayd leeral Junayd nag ko jàmbaare woon la lool ci wàllu tasawuf waaw ndax nee ñu sax bu tasawuf demee ba am yoon wu leer wu ñuy rëdd naan lii ca la ak lii du ca ci moom la tàmbalee mel na ni la ko jiitu xay na leerewutoon noonu muqaddimatun lii lu ñu jiital la li kitaabil ixtiqaad ñeel téere pas-pas yi wala téere pasteef bi mo'inatun buy aji dimbale li xaari iha ñel aji jàngam alal muraadi ca nammel ga alaykumsalaam ba lay dugg ci wàllu tawxid bi day njëkk def benn muqaddima bu ko defee lim la ci jàngal boo ko xamee dana tax nga mën a dégg bu baax a baax njunj yi nga xam ne ak li mu lay wax ci bunt bi wa xukmu naa suñu àtte al aqli bay ko jóg xel xadiyatun ab àtte la bila waqfin ci lulul taxaw ala aadatin ci aada aw wadain wala ak tër jalaa feeñ na dangay njëkk a xam analan mooy àtte bu ñu waxee àtte daal mooy saxal mbir ci mbir wala dàq mbir ci mbir boo nee zeyd dafa toog kon danga saxal ak toog ci zayd waaye boo ne zayd toogut kon danga dàq ak toog ci zayd boo nee ceeb bi dafa neex kon danga saxal ak neexit ci ceeb bi boo ceeb bi neexut kon danga dàq ak ci ceeb bi loolu rekk mooy àtte mooy saxal mbir ci mbir mbaa dàq mbir ci mbir àtte boobu yi nag xel dana koy def waaye it danay doon atteb aada mooy xukumul aadi yi atteb aada mooy atte boo xam ne nii la daan xewe daan xewe nii nga xam ne daal bañ juddoo ba léegi wala bañ ko xamee ba léegi nii lañ ko daan gis mu daan amee nii nga xam ne bu amee na neen loolu la ñuy tuddee xar baax xotti baax waaye atte yi danay doon lu ñu tëral lu mel ni atte boo xam ne yàlla da koo tëral ci kaw jaam yi waaw waaw am na it xukumu taklifi ak lu xukumul wadai yooyu yeneen la waaye yooyu daañu ko gis ca kanam incha allahu taala waaye li ko yëtteel fii rek mooy atteb xel bi nga xam ne xel mu sell mi moo koy xalaat ba ne nii la walla du nii ndax kat li tax ñu yittewoo loolu mooy ci wàllu tawxid niñ koy jàngee dañ ciy séddaale wàllum xel bu baax a baax a baax ndax am na ci yoo xam ne ci xel lañuy xalaat ba xam ne lii rek moo mën a nekk waaye ci xel la ñuy xalaat ba xam ne lii mënta nekk wala ci xel la ñuy sukkandiku ba ne lii kat mën naa nekk mën naa ñàkk it kon ak amam ak ñàkkam ñoo yemoo aqsaamu muqtadaahu xaaji la mu sàkku tumaas def na ko ràññee bil xasri cig takk waxeeti ñoom al mooy warga al istixaalatu ak jomb ga al ak dagan ga atteb xel moomii ay xaajam ñett yii la mooy xel mu sell kat lu mu xalaat ba bàyyi résultat yam ca mën a génne benn ci ñett yi lay doon benn mu doon loo xam ne alwucuu bu nga xam ne dafa war ak amum moom mënta ñàkk ni ki amuk yàlla wala mu doon loo xam ne lu jomb la mënta nekk ni ki ñàkkuk yàlla wala mu doon loo xam ne lu jaadu la rek maanaam lu dagal la lu mën a am mën a ñàkkal ni ki amuk mbindeef yi mu teqale la ko mu ne fa waajibun aji war mooy loo xam ne laa yaqbalu du nangu an nafya dàq ga bi xaalin ci menn mbir wamaa loo xam ne nag abaa bañ na af subuta sax ga xaq lañ cim xel almuxaal mooy lu jomb waajib mooy loo xam ne xel mu sell lum ci xalaat xalaat du xalaat mukk dàq ko li muy xalaat mooy saxal ko loolu mooy amul yàlla amul yàlla xel mu baax mu ci xalaat ba noppi résultat ba muy génn rek mooy yàlla ku am la waaw menn xel mu baax du xalaat di ko dàq mukk ku ko dàq rek dangaa dox yow sam xel baaxut loo xam ne nag xel munta xalaat ba saxal ko xel mu baax du ko saxal mukk mukk mukk lu mu ci xalaat xalaat day mujj rek ne lii mënta nekk loolu la ñuy tuddee almuhaal mooy lu jomb wala almustahil loo xam ne mënta nekk loolu mooy lu mel ni ñàkkug yàlla ñàkku yàlla moom xel mu sell du ci xalaat mu ku ba saxal ko lu ci xel mu xalaat xalaat xalaat day xam ne rek lii moom lu mënta nekk yàlla ko am la wasim na nga màndargaale jaayisan aji dagan maa loo xam ne xabila nangu na al amrayni ñaari mbir yi loo xam ne nag xel mu sell mi bu ci xalaatee ba bàyyi dana ne lii mën naa nekk waaye mën naa ñàkk nga xam ne ñaar yu ñoo yemoo képp loolu la ñuy tuddee jaayis lu dagan wala nga ne ci wolof lu jaadu rek loo xam ne mën naa am mën naa ñàkk loolu mooy lu mel ni amul mbindeef yi amul mbindeef yi xel mu sell mi bu ci xalaatee ba baax lii day mën naa am mën naa ñàkk nga xam ne am nga ak ñàkk nga moo képp kullun képp nag xusima na ko li daruri yi ñeel nga ne lu fëste leer naññ nga xam ne xam ko aajowut seetantal wan nazar yi ak an nazar yi mooy ko jóg seetantal ku mu ci ñett yi nag dafa def ñaari xaaj am na loo xam ne ad daruriya mooy dafa leer nañ am na ci loo xam ne nag ad nazari balaa nga koy xam eh, da nga koy seetantal yooyu am na ay misaal yu bari waaye dañ ci bañ a dugg muy gudd waaw ci misaal ad daruri mën nga ne lépp loo xam ne mooy eh, mu ngi bàyyi ko ci alxawaas loo gis ak sa bët wala loo làmb daj ko wala yu mel na loolu ab daruri la waaye loo xam ne nag kalkin xalaat mooy tax nga xam ko loolu la ñuy tuddee an nazari ci misaal ab daruri mooy ñaar moo ëpp benn ñaar moo ëpp benn loolu moom jërut xalaat kooko wax rek mu xam ko kooko mu xam ko ñaar ëpp benn waaw waaye nag boo ne woon euh, trois fois trois neuf maanaam ñetti trois neuf loolu nit mën ta jekki-jekki xam ko faw da ngay da yu mel noonu daf ci am awwalu waajibin aji njëkki aji war alaaman ci koo xam ne kulli fa toggeef na ko jëf mu makkanan muy ku ñu jàppandal min nazarin ci seet ay yaarifa mooy mu xam allah yàlla war rusula ak yonante ya bi sifaati ca melo ya mimmaa ca la nga xam ne nasaba samp na moom yàlla al ayaati màndarga ya alayhi ci moom mukallaf dana wax léegi mooy kan waaye li njëkk a war ci mukallaf mi nga xam ne ànd naa koom xelam mën naa seetantal mooy mu yitte woo xam yàlla mu ñu waxee mu yitte woo xam yàlla nag yàlla ci boppam du ku ñuy xam waaye nag daf caa am ci moom loo xam ne mëneesu ko ñàkk xam ndax la nga xam ne ca la ñuy wérale suñu gëm ci moom loolu mënee su ko ñàkk xam kon képp koo xam ne yàlla jox na ko am xel mu mën a seetantal xelam moom yi na ci seetantal ba xam ci yàlla bu seetantal nag day seetantal ak a xalaat ci li yàlla bind te mu yéeme te bañ a jëme xalaatam ci jëmm yàlla ji ndax jëmm yàlla ji xel mënu koo takk karoot li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne xalaat leen ci kaawteefam yi ci li mu bind te mu yéeme te bañ a xalaat ci jëmmam ji yonent yi it seeni melokaan melokaan yi nga xam ne dafa war ci ñoom ak melokaan yi nga xam ne dafa jomb ci ñoom ak yi nga xam ne dafa dagan ci ñoom yooyu yëpp it mu jéem koo xam loolu daal mooy njëlbeen li njëkk a war ci nga xam ne moom la tuddee kàllafe lan mooy kàllafe mu ne wa takk liifin gépp kàllafe nag bi sartil aqali nekk na ci sartum xel maal buluuxi ànd ak baalix ga bi damin ci deret aw xamlin wala ëmb man nga ne maal bu looxe ànd ak kàllafe ga bi ci deret aw xamlin wala ëmb aw bi maniyin wala ci mani aw bi imbaati saar wala ci sax karaw sax karaw karawu naq wala karawu poqutaan aw bi samaani asratin wala ci fukk ak juróom-ñett xawlan ci at zahara lool feeñ na kàllafe ci boppam dafa am ñetti sart am juróomi màndarga juróomi màndarga yi nga xam ne kàllafe da koo am daf ci am yoo xam ne góor rekk a ko jagoo am yoo xam ne jigéen rekk a ko jagoo am ci yoo xam ne góor ak jigéen ñoo ci bokk yam li nga xam ne jigéen rekk moo ko jagoo mooy gis dereti mbaax mbërëk reegal kooku góor du ko gis jigéen nag da koy gis te bu ko gisee màndarga la mu koy wan ko moom mii kat kàllafe na niki noonu jigéen bu ëmbee mbaa mu mata ëmb it loolu màndarga la mu koy wan ko kàllafe na góor bu géntee gis mani it loolu màndarga la mu koy wane ne kàllafe na aw bi imbaati saar nag ci sax karawu naq wala karawu poqtaan ñoom ñaar ñëpp ñoo ko bokk muy góor ak jigéen aw bi samani asratin hawlan sahar wala kum ci mandi doon bo amee fukki at ak juróom ñett it loolu mandarga la mu koy wane kàllafe na kon loolu góor ak jigéen ñoo ci bokk yam sax karaw naq wala karaw poqutaan wala am fukki at ak juróom ñett góor ak jigéen ñoo ci bokk yam di ca xamee seen mandargay kàllafe bu dee nag gis dereeti mbaax wala ëmb kooku jigéen rek a koy def gént génn man yu kooku góor lañ ko jagleel kon yooyu juróom ñooy màndargay kàllafe lan mooy sarti kàllafe sarti kàllafe ñett la ba ci njëkk mooy nit ki ànd akum xelam nit ki àndut akum xelam moom boo amoon téeméeri at ak juróom fukk taxu koo kàllafe kàllafe gut ñaareel bi mooy na jot woote bi yonente bi sallallahu alayhi wa fam nekk di dund na yëg ne yàlla yónni woon na yonente bu tudd muhammad mo doon woote diine lislaam waaye nit ki bu nekkee ci boo xam dund ba faatu te mësta yëg ne yàlla mas naa yónni ab yonente bu doon woote diine lislaam yëgutoon loolu kooku kàllafewut ñetteel bi nag mooy mu gis benn ci màndargay kàllafe kon xam naa foofu la ñuy taxaw ba del siwaat ci beneen dars di ñaan borom bi mu defal nu ak dégg ku jariñu ci baaxuk sëriñ bi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain